international ànd ak ay partenaire am Saloum Dieda World Trading Clinique Marie ak Almadina International Travel ñoo leen di may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur salaamaaleykum euh, auditeur Sen Info waa tey euh, docteur Konaté moom moo dellu si waat euh, pour les mercredis donc du docteur Konaté waaw Euh, tey euh, dañuy wax ci benn sujet boo xam ne bu sensible bu particulier également tey euh, damay ñaax surtout suñu rakk yi suñu doom yi parce que dafa am benn phénomène boo xam ne léegi dafa xew ku am cent francs wala deux cent francs au maximum mun nga permettre sa bopp nga wut ce qu'on appelle ay topetu alcool te loolu nañuy jël pour pour mandi donc doy na waar trop te li muy jur ci loolu nañuy waxtaan tey dinañu wax tuuti ci cirrhose euh, cirrhose feebaru foie la ci gàttal foie bu yàqu la euh, foie bi li koy yàq euh, bokk na ci alcool yi suñu rakk yi yi suñu doom yi di jël parfois même suñu moroom yi ah, ñi nga xam ne dañu xaw a désespéré je sais dugal mais même si ñu doon naan sax boo xam ne xaw na tane sax boo xam ne du leen andil yenn yi mais bii alcool bu bon a bon a bon la nga xam ne yàqu foie bi si yàqu foie bi rek euh, lay euh, jublu te dañ koy naan nit ñi dañuy wax ba sonn mais ñi ngi continuer Euh, di nga naan donc tey euh, damay def émission bi pour ñooñu pour mën a attirer seen euh, attention tuuti boo xam tamit ci di lii di yàq fois bi benn virus wala ay virus mooy virusu hépatite yi hépatite B wax nañ ci la dernière fois donc ak ay complication ak ay conséquences am Eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo intéressé woon par rapport à ça parce que dañ ma si poser ay questions en pagaille eh, si même question bi nga xam ne moom nañ ma doon euh, gën a poser moom mooy ñi nga xam ne dañu am euh, ñaari jabar ak ñetti jabar bon si loolu dinaa si dellu si bés bu ñuy wax waxu euh, MST mooy les maladies sexuellement transmissibles dinaa si dellu euh, si lu gën a yaatu donc euh, hépatite cirrhose donc wax naa leen li nga xam ne moom moo koy indi hépatite euh, hépatite yi la et plus particulièrement hépatite B ak euh, alcool yi nga xam ne suñu rakk yi suñu doom yi ak même suñu yenn naataango yi di jëfan jëfandiku nak nañuy xamee que nit ki dafa am cirrhose euh, dafay am lu muy yëg ci yaram bi li nga xam ne moom. lay njëkk a hmm? mun na nekk euh, benn jaunissement si bët bëti bët yi dañuy jaune ñu koy wax ci suñu jargon ictère euh, jaunissement yi boobu tamit mun na laal euh, der bi ah si kaw jaunissement boobu nit ki mun na sentir benn coono. coono bu metti du liggéey du def dara mais day santi ne que ne euh, dafa am coono si si yaramam boole ko ak benn benn perte de poids donc day am benn amaigrissement nit ki di jeex te du xam donc euh, jeexaay bi euh, lan la léegi loolu sat boobu su dépassé rek Euh, day am ce qu'on appelle euh, ay hémorragie ay hémorragie digestive nit ki donc mun na euh, muy wëccu deret ah wala mu dem cabinet deret génn deret bu ñuul day mel ni goudron bu boobaa ñu xam ne que ne nit ki mi ngi def ay hémorragie digestive donc loolu ba am na foo xam ne su ko tolluwee. Euh, am nañu ay jumtukaay am nañu ay garab yoo xam ne suñ ko joxee mun na freiner évolution wu feebar bi euh, nit ki mun na am euh, jàmmam tuuti mais am na foo xam ne su fa tolluwee dootuñu ci mun dara te parce que soit dafay continuer jox joxe lu ñuy wax cancer cancer du fois Euh, cancer bon wax nañ ci lu bëree la semaine dernière euh, soit euh, mu continuer joxe ce qu'on appelle benn comment loolu la ñuy wax coma hépatique donc coma hépatique dafa nekk benn coma boo xam ne dafa irréversible Euh, nit ki dafay euh, nelaw te nelaw bi day gën a profond et à un certain euh, niveau donc dootuñu ci mën dara évolution bi c'est tout simplement donc vers la mort donc à la limite ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo genre xeetu alcool yooyu yëpp à la limite man je peux dire que dañuy xaru donc parce que amul lenn lu positif loo xam ne dégg ngeen ko ma wax tey loo xam ne affaire bi daf leen di jëmee foofu donc euh, ma lancé benn appel à nos jeunes frères et sœurs à no amis à peut-être nos nos nos grands frères yi nga xam ne donc dañuy jëfandikoo xetu alcool yu mel noonu euh, pour ñu bàyyi xel ah euh, ñu dellooti seen xel ñu xool lu gën a yeeloo maanaa euh, pour ñu mën ko utiliser ñu jéem a seen envie ñu jéemale ko feneen hmm, moom moo gën donc ñuy ñuy xaru donc euh, essentiellement tey euh, loolu laa amoon donc euh, pour jéem a attirer seen attention donc par rapport ak alcool bi ak donc par rapport ak cirrhose bi di remercier encore auditeur u seen seen info et plus particulièrement Euh, samay euh, xarit ñi nga xam ne ñoom laa màggandoo waa Bronx donc euh, ñoom Amadou Diaw ñoom Jibi ñoom Saliou ñu koy wax Moser ñoom Papa Niass donc Georges Ibrahima vraiment di leen ziar. ñoom tout le temps ñi ngi déglu di ma encouragé ah di ma encouragé merci à l'équipe yi euh, nga xam ne ñoom ñoo ay accompagner et plus particulièrement sama caméraman euh, Abdel euh, toujours présent waaw donc di ko encourager et di leen jox di daje le mercredi prochain merci beaucoup